graw parce que dafa toog ak nit kuy demander euh, droit am nga enregistré ko. merci loolu moo jëkk a graw Ousmane Sonko sénégalais la citoyen sénégalais la comme man am naa droit bind lettre wala ma aw ci ku ma xam ci gouvernement bi ni ko grand nan laay def pour président recevoir ma. am naa idée yu ma koy jox. waaye Mansour bu nee enregistrement récent maanaam yàggul waaye du ci audience ba. ak lu non du ci audience ba mais moom la doon waxal. moom mi mu doon waxal def ko enregistré mm-hmm. c'est-à-dire loolu mooy danger ci réew bu dee enregistrement boo xam ne yàggul ci ab ministre de la république ki toog ak yow di waxtaan yow di demander audience président nga enregistré ko mais loolu mooy danger loolu laa di Sénégal bu ñu fa yeggee fan la ñu jëm est-ce que toogate ak président wóor na Mansour li mu wax dafa garaaw. Mhm. moom dafa enregistré Sonko bi mu koy demandé pour toog ak président. kenn dootu toog ak moom. waaye ndax comme données personnelles la ndax du loolu moom moo tax mu ne dafay demandé autorisation Ousmane Sonko laataa mu koo. trahison la nga naan ma données personnelles su ma toogee di waxtaan nga may demandé une chose ma enregistré ko loolu musiba la loolu délit la loolu trahison la léegi nga ne après euh, kilifa am na ay termes wàllu communication yi waxee xam nga vraiment euh, Soeur Malick Euh, doon ko tàggataa tout ci wàllu a xam ki ma bu nee prép ma génne ko c'est-à-dire waxu waxu mbedd waxu kilo kii la quoi. un ministre de la république doit parler d'une façon boo xam ne dafay dafay vraiment am punch am caaj. Mhm. Sonko démb qu'est-ce qu'il a dit Mansour Faye est un menteur. ok loolu la ñu xëy wax wax bi xaw na diis. parce que xam na ci wàllu communication ban charme lay jaar pour toucher waa mhm. mais Mansour tey vraiment tey moom euh, ñu yor wàllu communication et puis Mansour bu mu fàtte ni moom moo euh, développement communataire mhm. parce que ñu dañoo ndóol moo yor équité sociale bokkul ci fi réew mi toll tey. ndax bu ci kanam balaa sa journal la jeex di ñu wan wenn askan wu nekk biir Dakar ci inondation yi di dund souffrance boo xamante ni bi doxewul rëlam mhm. donc yooyu doy na aw sas téesante jamono ji tembe boo xam ne téesante boo xam ne nag man defe naa ne presse bu ñu xëyee ba nga xam ne boo mhm. toogee ak ministre wax ak moom daf lay enregistré ñeneen itam euh, àddu nañu ci Mansour bokk na ci ki la xam-xamam màcc bu baax ci wàllu communication mu di Bakary Domingo Mané euh, moom li mu daal di xamle mooy li ni mel jaru ko woon euh, kon dafa doon loo xamante ne nag ci jamono ji askanu Sénégal soxlawuñu ko ndax am nañu yeneen i priorité ñu déglu ko lan la bëggoon wax sénégalais quel est le message boo xoolee au fond y a un brouillage donc euh, affaire bi leerul man daal leerul sama sama bopp xawma ndax leer na si boppi sénégalais en tout cas man daal le message principal gis ma ko fii lu ñu mën a Mansour Faye est revenu à de meilleurs sentiments par rapport à l'OFNAC dafa ne woon du dem wuyu si même OFNAC bu ko buñ ko woowee du dem wuyu si revenir sur la polémique n'est-ce pas avec que polémique boobu cest à dem wuy si vraiment OFNAC OFNAC ko parce que loolu yëpp day